Euh, salaam gaay léegi tey euh, presque astuce bi bëriwul li ma si wax sax parce que ñu bëri comprendre nañ naka lay demee euh, tey dama woon pour won leen naka ngeen di def ba mën a créer seen compte Facebook ok gaay pour nga créer sa compte sa propre compte Facebook léegi actuellement man téléchargé na application bi ba pare léegi fii rek laay ñëw léegi su ma ñëwee fii nii damay bës ci euh, Facebook bi une fois que ma bës ci Facebook bi gis ngeen lii lépp ay compte la léegi damay def euh, fii laay ñëw créer un compte mais dalay wax hmm, vous avez des gens au compte ou bien suivant da ngay def fi ngay bës suivant léegi une fois nga bës suivant fii maanaam fii fii da ngay bës euh, te fii da nga fi def sa prénom fii sa nom de famille une fois nga def fii sa prénom exemple comme que man dama leen di wan rek fii ma def fii lii. entrer un numéro de téléphone. fii da def sa numéro de téléphone ubi bien adresse email léegi. exemple fii dañuy def suñu numéro de téléphone mais numéro de téléphone bi bëgguñu mu feeñ léegi dañuy pause vidéo bi ok gars yi buñ defee numéro de téléphone bi ba pare fii ok une nga def sa date de naissance ba pare da ngay ñëw fii ba suivante di leen aimé vidéo bi s'il vous bu dee ku bees nga mu la nga abonné fii ba suivante nee la nga xool ban option ngay jël fii fii mooy jigéen fii mooy góor fii mooy personnalisé loo neex ngay def daal ok gars yi léegi fi ngay créer sa mot de passe mot de passe bi nag mooy du kaa fàtte ok léegi dañ koy pause pour terminer la léegi une fois nga def loolu lépp lu la laaj léegi presque actuellement ni terminez votre inscription la la wax les personnes qui utilisent votre service un puis importez vos coordonnées sur Facebook en savoir plus soo neexee nga xool ok gis ngeen inscrit bi jàll na léegi di ñuy bës inscrit s'inscrit la ñuy bës c'est très facile pour nga créer sa compte Facebook yomb na trop ok gars yi léegi gis ngeen fii li ñuy def li ñuy defoon maanaam euh, suñu numéro de téléphone ok xaani pause vidéo bi moo gën ok gars léegi léegi ubbi nañu suñu compte Facebook mën nañ commencé léegi di seetaan bu leen fàtte abonné nag ngeen activer cloche de notification bi parce que moo ñu yokk doole jàngeen jëf gaay